waaw père bu loolu weesoo ñu daal di projeté wu ci après combat parce que gis nañ coow lu am na ay sorties yoo xam te ne susitene yi wuy wane yenn pratique mystique yoo xam am ma njëkkee rek nga xam te ne mi ngi doon circulé ñuy xam te ne Balla Gaye am ñu bëri di ko ñaawlu waaw xam nga loolu ku xamul rek xamul ñun génn ñu yoof gi pax yooyu nga gisoon Balla Gaye nii fa la ko fekk mais loolu ba bataille psychologique la rek Balla kenn mësul gis mbër mu ñëw ci biir Iba Mar Diop wala Demba Diop wala stade ci sëriñ liggéey ko ba mbër mi taxaw daanu masta am ñaan gi dañ ko fee fekk il faut ñu di ko def mais doole la ñu indi ak xam-xam ak xam li ñuy def moom la ñu daane Modou Lo du leneen nañ ko teg ci cadre li ñu doon def paasewul ay okaama ki ngor ñoom am na lu luñ doon def xëy na li ñuy def dañ ko nëbb ñun nag fi ñu jëm dañ ko ñeme ba li ñuy def dañ koy def mu ni fàng ni jant ndax bëri wu guddi bëccëg la ñu bëri loolu laa lay mën a wax ba ma leneen. kon coow li muy bëri bëri yëpp Balla Gaye dem Nigéria. non ñun xalaatuñu dem Nigéria xam nga Abdou Aziz Ndiaye yàlla na ko yàlla fayal fayal ñu bàyyi Ndiaye xam nga géejawaay bu Balla Masaan daanu dafa am ñuy am AVC ñii di dee ñii di am problème te li Aziz am ba def ko ci Balla Gaye man bu ma ko amoon def ko ci bàlla Gaye kon gàcce ngaalama Aziz Ndiaye dama ni li am solo daal Aziz daan na Amadou Ba Balla Gaye daan na Modou kon leader politique gu Guédiawaye yi ñoom na ñoo am sens ñooy roi des arènes bi ba ca kanam. waaw Père mu abordé beneen point rek euh, loo xamante ne ci préparation bi la la la tàbbi woon euh, muy euh, vidéo bi nga xamante ne mi ngi doon circulé ñu fiy dégg baatu Moustapha Gueye muy wax ci suuf. Ah, dañ la ci interroger yow nga mel ni ku confirmer loolu mel ni da def bataille psychologique ci ci camp adverse mais tamit dañ déggoon tamit coach sam ki nga xam te ne moo ko yoroon box mu ne loolu hasard hasardeusement la ñëw dañ daje ci benn salle Balla Gaye di saafoonteeg Serigne Ndiaye après ñu commencé soto Moustapha Gueye wax mais yow nga mel ku ko moo loolu mel da nga doon jéem a lëre camp adverse bi non xam nga làmb ji day changé ndeysaan xoolal tey site internet yi ñu ngi ma fekk suma biir kër di ma laaj adduna bi doxul day daw nit ñi nañu yeewu xam nga médecin entraîneur am mais médecin ko dàq football mais mu ngi ko soxla ci touche bi rek pour souvent munu ko moytul lii wala defal lii mais Balla Gaye bi muy daan Moustapha Gueye ana lu mu ko daane woon bi muy daan Tyson ana lu mu ko daane bi muy daan Yékini ana lu mu ko daane bi muy daan Balla Gaye numéro 2 lu mu ko daane bi muy daan Tapha Tine ana lu mu ko daane bi muy daan Modou Lo ko daane Balla Gaye yàllaa ko jàngal bëree dama ni Moustapha Gueye frère Aziz Ndiaye la te làmb fii ak tolluwul Balla Gaye numéro un ni ñu jël ko yóbbu ko Mbuur wala Faas wala Parcelles Assainies Modou Lo fay ko wala Eumeu seen fay ko wala Bombardier fay ko mu jël xam-xamu tuusam dolli leen ko làmb développé wul dama ne geste bi nga xam ne moom la Moustapha Guèye def man du lu ma assisté mais loolu dama ciy dugg ba ci biir prochain combat su Balla Gaye amatee combat ñu am lu ñu soxla ci euh, Moustapha Guèye mais dañ koy jëli Moustapha Guèye jëli wuñ ko Moustapha Guèye mooy dund Balla Gaye ndax dafa di ndaanaanu bërekat yaakaar ni kenn mënu koo doon Balla doon na ko bu doon na ay bagaasam moom dafa fan Balla moo tax mu seeti ko fa mu ne Balla def ay gestes ñu daje ca saal ba mu dugal ci grain ñu taawi ko nun tam ñu yokk ko mais ku daan mbër mbër mi dellu bëgg laa xelal problème mu tuus rek la woon ba ci kanam. waaw père bu loolu weesoo aussi ñu daal wax ci li nga xamante ne rek moo gën a waral coow li muy sorti bi nga xamante ne defoon na ko. ni ñaari ñaari mbeuri mo lan fay ku nek 100 millions coow li trop ñi nan mo teug combat bi amna ñu dem sax banan tay mo gasso nañu lekkolo pour monter ben coup tendre ben pièce modulo Lo ñu deug ku melni ni ñi nga mu def sorti ñaawlu lolu ku melni Pambay aussi daal ci wax bay ngaañ Aziz sax na bëri le senegal ñuy woowee kilifa sen alal moo mais sen comportement ak sen état d'esprit doyul ñu leni kilifa xam nga avant tout ma ngi gërem ñi nga bu baax te di wax modulo Lo mu tey Birame ñi nga fukki loxo Birame ñi nga bayam dafa doon organiser ay lamb mu donn ko di ko def Modou Lo nag nee naa ñi mu jàppoon démb ba léegi bàyyiwu leen te ku mu tane dimbali na la e, entraîneur am bi Pambay nit ku baax la mais Aziz tëggul làmb ji làmb ji mënuñu ko tëgg lu dul CNG ci boppam da nga fay dem jënd licence Gaston nga moo jënd licence Gaston Mbengue moo jox Modou Lo avance moo jox Balla Gaye avance moo organiser bis bi Aziz nag dafa am benn produit bu ñuy wax Jador Jador mu dem ba Chine àddina bi yëpp di ko consommé garçon bee ngi ñëw seet si ko mu jël ay millions jox ko mu am lu mu ci dolli joxe avance mais Modou Lo du mas a poñe Aziz Balla du mas a poñe Aziz làmb jooju Gaston Mbengue moo ko tëgg tëgg xam nga li am solo mooy nun ñëpp noo bokk réew mi ñoo bokk suñu sport bii nga xam ni sport bu riche la ndax football mu ngi jógee Angleterre karaté mu ngi jógee Chine kon àll lu fa moo di ñàkk nañu téye suñu làmb ji à haute voix bañ a tamante ndëmb tey bu ñu daanoon Balla Gaye ñun dirigeant Guédiawaye yi du ñu waxee comme ni yeneen dirigeant yi di waxee mais Birame ñi nga ak Pape Mbaye dama leen naw wallahi lazim dama bëgg site yi am na loo xam ne sax bu kilifa waxee ci site nga xool nu mu rafetee nga defee ko noonu tey li ngeen ni siitu Guédiawaye ngeen moo tax ngeen woo ma ma di leen may wax ak yéen mais fi ñu toll li ñu wax dafa doy du mas a doy ndax ndax télévision yi dañu doon arnaque di ñu sonal. du nu laaj te soixante-treize à nos jours ñoo ngi ci làmb ji di ay boroomi xam-xam xam lan mooy bëre tey sunu naqar yëpp yéen ko faj ñu ngi leen di ñaanal bonne continuation yàlla jàppale mais entre biram ñi nga Pape Mbaye dirigeant wu parcelles yi ñi doon jàppale Modou ñu ngi gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp di ñaanal Modou Lo am amatee combat bu dul doomu Géejawaay yàlla na ko yàlla may ndam mais ma lay wax ni daal sama doom ji moo leen man nañu rafetal mbir yi rek loolu mooy li am solo Balla Gaye deuxième roi des arènes ma ngi ko amaat le treize. ndax di fekk Eumeu Sène nee na lu bëree ak moom deuxième roi des arènes ñun waa Guédiawaye jox nañ ko ba bala ñuy gisaat drapeau roi des arènes ba ci kanam. waaw dégg nañ sax yi tamit moo ku mel ku mel ni moom rek muy nijaay Modou Lo mu euh, def benn sortie daal di wax ne ñoom jomb nañ di di sacrifier ay bakkan pour am ndam yow lan ngay tontu ci kàddu yooyu. dogu naa ci Serigne Babacar Sini xam nga nag yàlla def fi indi nag yi indi fi gileem yi indi fi xar yeeg bëy yi heure buñ ci amee aajo dañ koy jël rey ko jox ko jaam yi Aziz taalibi Seex Pire la man mii taalibi Seex la dogu naa ci Serigne Babacar Sy amul benn sacrifice bu ñu def lépp lu ñu def ci alquranal karim la ñu dem jël ca li ñu yàlla wax ay musluwaay la ñu jël ko def ko ci suñu yaram ñoom bi ñu ñëwee ñoom ñoo jaaxle bay këfi gàllaaji ki def yiif li am solo mooy nañu rafetal mbir yi rek Aziz Ndiaye daal yàlla na nu yàlla may juróomi Aziz Ndiaye kon géejawee dem ci kanam ba ci kanam. waa père ñu def transition rek jëm ci combat li nga xam te ne mun naa ne beneen combat la combat capital bërki Dembo Ndiaye am na benn accompagnateur bu Balla Gaye numéro 2 ñun ñoom jàpp nañ ni tey bu fekkoon guerre la mun nañ dañoo gagné bétail mais gagné gun guerre bi guerre bi des na. te véritable guerre mooy Lac de Guiers numéro contre Boy Niang damay faral di wax ni kii arrêtera Boy Niang numéro ak Guédiawaye parce ñëw na fi commencé fi régner di percer fi mu jëm tamit ñëpp xam nañ ko moom neen am na fu mu dëgg bëtam te kii Lac de Guiers moo ko dese bu ko faxasee ci moom la jëm tey combat bu nan nga ko gisee. waaw xam nga déjà boo bëggee jël combat wu Modou ak Balla Gaye bëgg ko yemale combat booy Boy ak Lac de Guiers noo mënu nekk. Lac de doomu Guédiawaye la ñu ngi koy ñaanu lu ëpp li nuy ñaanal Balla Gaye mais fi Balla Gaye ex excès fa te nag ñoo bokk seen Casamance bokk suñu Guédiawaye gii ñu jaboote leen ñoom ñëpp. combat boobu réyul ci ñun dama wax ni nañu wax ñi booy ñaa daan ñi booy ñaa daan benn mbër rek la ci daan te jël ba mu ko daan biñ ko ko daanee dafa bañ keroog bi mu daanee Double Less ci surface su saaku yi dañ koy jox verdict keroog bi Gëstoos daanee ci surface su yi dafa bañ ma lay wax ni loolu ma wax à haute voix laa koy wax booy ñaa day liggéey dañ koo fay mu dugg si biir géejaway ndax bay booy ñaa Balla Gaye mooy idolam mooy idolu Sa Thiès di idolu ama bal di idolu bepp mbeur mbeur mo gis muy ngem ba ni Balla gay la bëgg mel kon gàcce nga la ma Balla gay malay wax ni Boy Niang lima waxon ci benen site la koy waxat mu ngi dugg bir géejawaay mais ñoo ngi koy seen ci parage bi ñoo ngi koy seen exégul mais du mas a egsi li koy taxé ex moy lama waxon la dëgër bu joxé bopam du man la koy jox nak ndax man duma sëriñ dara mais dama ni nun ñi tunda lamb ak magu géejawaay yi la dëgër jox leen seen bop nu ci wàllu entrenement ci lu mu mën a doon ba bis ba ñu dem fa mais Boy Niang mënta gagné Lac de Guiers c'est impossible ëpp ko doole ëpp ko qualité bis yi Lac de Guiers traversé Boy Niang egsee gu ci kon ñun ragaluñ li ñuy wax boo fi jógee nga dem laaji waa Pikine ñun dara wuñ même boo duggee ci beneen voie wala nga wax ñu safaan ba sax dafa ñuy neex xam ne ñun léegi ay star lañu bala ñuy neex ñu toog dégg ni am na ay nit yu wax ci ñun wax ju ñaaw loolu star fii waxuñu ci yow wax ju ñaaw yow nekkuloo star man lépp lu luñ ma wax rek daf may neex du fait que maa ngi dund géejaway géejoo jox ma seen cur seen seen cër ma di ko gere ma lay wax ni bu la dëgër jëlee làmb ji jox ko waa làmb bañ ko jox waa football ñu may waxal xam duñ seen bopp nañu dem sa football ba bàyyi ñoog làmb ji làmb ji ñun ñoo ko gérer la dëgër soxluñ ci woon ci moom mille francs masuñu ko may may ay centaine de millions laa ko jox man jaw hélicoptère bu naaw Modou Lo la dëgër laam Balla modlo ci la hélicoptère naaw dirigeant bu melni ni alaaji Malick Gakou géejawaay ko am kon ñooñu fi ñew nek fi ci bir géejawaay nek ay dirigeant di jàppale mbeur yeeg football bi maliga Gakou la ñuy ci walu football ci walu basket ci walu handball ci walu lamb tay bu ñu demee ba ñu réew mi di daw wuti lamba gàcce ngaalaw maliga Gakou ba nga laaj ma leneen wa père ci kaw loolu parce que dañu fara dégg de faral di dégg yoy lu bari ñaan la déggee ay footballeur ñoko ko yor dañu bëgg rek doon nga leeral loolu quoi kàddu yoy nga lan mo tax ngeen faral di wax loolu xam nga ñi mu yoroon ànd ak ñoom ba egsi fii c'est très normal mu ànd ak ñoom mais ñooñu dafa am lu ñu man ñi ko yoroon ba mu egsi fii am lu ñu man lamb ji du lamb football lamb borom xam-xamu lamb lañu lay jox boppam entraîner ndax la dëgër mbër mu ñeme entraîner la mu am jomlu mu am fulla la wax ba ban nit ko daan jël bu leer kon gàcc ngaalama la dëgër kon booy ñaa ñu ngi koy ñaanal mu am jam, di ko ñaanal waa Pikine di ko ñaanal waa géejawaay ndax làmb ji ñun dirigeant yi ñoo ko mën a defar mais dañu dul nangu booy ñaar dugg géejawaay bëgg ko faagaagal dafa jot ñun waa géejawaay ñu taxaw jàkkaarloog booy ñaa pour génne ko biir géejawaay te man jaw je suis ak ñeneen ñu pare li may wax loolu laa ci ragal booy ñaar dañ ko fay fay la dëgër dirigeant wu Pikine ñu ngi waat dama ni làmb ji du geer du ay bal mais nag du ñu seetaan rek booy ñaar dugg biir géejawaay rek di leen éliminer ba géejawaay auteur bi ñoon amatuñ ko loolu duñ ko nangu moom na xam boppam delloo si boppam ci loxo yi mu yoroon ñu di ko pousse ba mu egg si fii loolu na ko la dëggeen xam soxlawu ma ci moom 1000 francs bi ma ànd ak ñoom ba léegi ma suñu maa may 1000 francs soxlawu ma ko man sëtu yoro jaw la nañ ma wekk rek yëg ma teg ma sama place comme fi ma bàlla teg Baye Ndiaye teg ma fa Aziz Ndiaye teg ma fa Pam ma teg ma fa Géejawaay teg ma fa ku ma fa teg rek ma taxaw sama taxawaay ku fa tegul ma dem goor ci sama pilier ba ci waaw mais ci ci yan loxo la Lac de Guiers war a jaar yan yan yan yoon la war a jaar pour mën a jox boppam ñi nga xamante ne ñooy magu làmb yi comme ni nga ko waxee parce que loolu Sénégal yu bëri ñu ci posé wu question dem ba sax Balla Gaye 2 jàppale bi mu am Lac de Guiers amu ko. loolu waxin la rek dama ne géejawaay du Aziz rek mooy jàppale mbër yi jeune géejawaay yëpp ñu ngi dugal seen loxo ci géejawaay amuñu dul géejawaay barka démb bu géejawaay amoon savane lan mooy xew est-ce que xam nga waa parcelle bu ñu gañe woon Balla Gaye France feetu jee xam loo loolu bés bu am solo la ñu am stade bi la ñu bëgg organiser woo magum géejawaay yi autorité géejawaay yi woo mboolum ku dëkk ci biir géejawaay muy góor di jigéen ñu teral Abdou Aziz Ndiaye Baye Ndiaye Balla Gaye mbërum géejawaay yi jigéenu géejawaay ak magu géejawaay yi pare nañu pour def loolu nun boobu bis bi ñu tàggoo Modou Lo bis dootul ñëw ci Balla Gaye ba toll nii ci ñun bis bu rëy la ci ñun ñu ngi ciy gërëm yàlla di julli ci yonent bi ba ci kanam kon Euh, accompagnateurs yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci ginnaaw Balla Gaye 2 dar ko di ko poussé ba ñu bëri naan loolu noonu moom moo ko xaw a manqué pour mu daal di dem daal am loolu ci yoon yi mu war a jaar mun nañu jàpp ne erreur de communication la manque de communication ci seen diggante ak Lac de Guiers numéro 2. Lac de Guiers amul ak problème dirigeant wu Guédiawaye du Aziz Ndiaye du Baye Ndiaye du jaw du Pam Mam du école de lutte bi mu nekk dañu wax rek ne ñooñu ko tënk nañ ko yolomal làmb ji làmb Guédiawaye la na ci ñëpp jàpp comme ni Pikine mais Pikine dañu nekk. dégg loolu moo pikinité waa pikin li ma neex ci ñoom mooy dañu bokk ndey bokk baay loolu amul ci biir géejaway waa géejaway nañu sensi seen esprit bokk ndey bokk baay union fait la force ñu jàppante pour bu ñu demee ëllëg mën a gañe loolu mooy li am ñun waxuñu pour sànni xeer booy ñaa wala keneen booy ñaa champion bu mag a mag la te ni muy doxee loolu moom intéressé nit da ngay rëy bët waaye <laughs> ba ci kanam kon daal jot na pour ñi ko yor daal di yaatal mbir yi ngeen sottante xalaat ba mën a génn ci combat bi nga xam te ne moom lañ dëgmal digganteem ak xam nga wax ji du ma ko ñaawal dama bëgg ñi may déglu ñu dégloo ko xel bañ ko dégloo xol man sànniwuma kenn xeer dama bëgg rek la dégeer xam ne làmb ji làmb ju nu ñor la làmb capital la géejawaay yëpp taxaw nañu talal ko loxo moom da leen na talal géejawaay loxo géejawaay téye ko la dégeer mbër mënu ko. ku ni yow Lac de Guiers ay daje da ngay bàyyi ba tëral ko ci suuf gàcce ngaalama Lac de Guiers sur tout le plan mais xaayaan ku dégg séeréer moom li ma ko ca xam na ko fi mu war a dellu ba am lu mu amoon na fa dellu ba ci kanam. waaw père avant de terminer rek léegi lan ngay wax ci site bi nga xamante ni mooy Guédiawaye Info TV bi ñu ko taxawalee ba léegi ñu gis liggéey bi nga xamante ne moom la ñuy def di accompagner démb doomu Guédiawaye ci événement boo xamante ni bépp événement boo xamante ni ci lañ jëm yow tey boo doon wax bi nga ci wax. ngeen gëm seen bopp buur bu mën a seetaan yàlla. seetaan moo ci jël paie ngeen lu gëm seen bopp xam ni lii doxal réew mi géejaway kii la yeewoo te nag bég nañ ci yéen trop ay ndaw ngeen ndaw yu am fayda ngeen ndaw yu xàmmee ngeen ndaw yu ràññee ngeen lan la def nit mën a def ci biir géejaway te jaw bokk ci loolu c'est impossible man doomu buur laa deretu buur laa yor bu ma jàppee damay jàpp ba mu fin bég naa ci yéen trop di ñaan seen sud bi yàlla bu ko benn sud raw mais bu ngeen bëggee mel ni siit yi wala ngeen raw ci siit yi da ngeen wër boroom xam-xam yi da ngeen seeti Birahim Ndiaye na ngeen seeti Mbaye Guèye le Tigre de na ngeen seeti Faga na ngeen seeti Pape Diop na ngeen seeti Balla Gaye na ngeen seeti Mor Fadam da ngeen seeti boroom xam-xamu làmb yi di waxtaan ak ñoom ñu yox lamb pire ñi seetaan chaîne bi xam ni booy yii ay booy yu am xalaat lañu micro c'est très grave image c'est kon lépp loo xam ni wax naa ko fi mu metti maa ngi jégalu entre ak Géejawaay Pikine moo jur Géejawaay mais Géejawaay niwul yàcc ba ci kanam jërëjëf. waaw kon le mot la fin message ngay lancé à de la population guédiawayoise particulièrement la population sénégalaise. waa ñu ñaan jàmm ci réew mi waxoon naa ni nguur jeex na yonent yàlla Souleymane bun Daawuda ak Namrud ak Firawna fële nguur yam yàlla moo moom addunaam Je suis doxal bis bii jëm muy élection yi mon jox mais luñu war man opposition bi la bok ndax man nit ku la xam-xam ci grand parti Je suis sama grand parti li may wax nak bu ngeen ko un dootu leen ma trois ans la formé dem parrainage d'office mais sur le plan politique nous képp ko mi mi di dem man leen ko à haute voix doomu géejawaay la na géejawaay yëpp taxaw ñu jàppale ko géejawaay situation bii muy demee ma ni ëllëg doomu géejawaay toog sa palais ba dafa jot ba ci kanam baay bàyyi. waaw boo bokk internet yi loolu moo doon waxtaan bi am solo bi nga xam te ni nañ ko ak euh, le grand père Diaw. moo bu doon nit koo xamante ne vraiment dañuy sawat di séq ak moom ak ay waxtaan comme ni ma ko waxee sànq rek waxtaanam moom dañ ciy mën di jàng lu bëri di taataan ci ay kàddoom abordé nañ point yu bëri mu daal di addu daal ciy jëmale mu doon waxtaan boo xamante ne mun naan c'est une discussion pleine d'enseignement loolu mooy moo waraloon tey suñu teewaay di leen sant di leen gërëm di sant aussi suma ñaari techniciens yi Mbadaani ak l'incontournable Bekay Koundoul di leen jox rendez